xuus tuuti ci yenn détails yi toj-toj yi nga xamante ne ni waa coalition toj-toj bëgg nañ euh, def nañ ko fi ba pare bëgg walbatiku ne kenn du ko fi leeral laataa loolu nag dama bëggoon a saluer liggéey bu mucc ay bi nga xam ni commission nationale d'investiture def na ko ci présidence su Ousmane Sonko. waaye ànd ci ak mbooleem responsable Pastef fii nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen journalistes yi bir na ma ne umpul leen ñeneen ñi ñuy defaree seeni list am na fa liste boo xam ne bañ koy defar sax am na ñaari leaders yu commencé woon xeex bañ àttale waaw eh, lu leer la nag te ñun dañu toog réunir président Ousmane koo wax ñu ni mu xalaatee ne noonu la ñu war a demee ci élection yi coordonnateur départementaux yi fa nekkoon yëpp daan nañ ñun kat li ñu defal ci tànneefu Bassirou Diomaye jaxaar fay président de la République doy nañu sëkk mën nañ laa bàyyi nga defar liste mu ne déedéet nan def nañ ko daan defee doxal démocratie na base bi proposé kon ñu delloo yëf yi base bi base bi proposé fu ñu am consensus ñu indi proposé ne nii la fu ñu amul consensus ñu indi lépp def PV bi teg après commission d'investi def investigation yi mu def ba tànn ñëpp nag mënoon nañ nekk valablement ci liste yi waaye xam nañ ne cent soixante cinq député la ñu soxla ba tax na ku tànn di nga am loo bàyyi waaye may wax rek ni bu ñu réere mbëkk miir li nga xam ne mooy ay principe bu parti Pastef mooy ñun ñëpp ku ci nekk am na foo mën a liggéeyalee parti bi am na foo mën a liggéeyalee réew mi waaye kenn du xëcc ci mbir ba mu jaral la nga ci ñaaw ba tax na xëy na tànneef yi dina am ñoo xam ne amoon nañu yéene teewal seen askan ci fee nga xam ne mooy pencum ndawi askan waaye yëf yi ni mu demee ak considération yi nga xam ne yëpp dinañ ko xool te ku xool list bi nga xam ne mooy liste Pastef les patriotes nga xam ni Sénégal gawuma ne mës na fi am liste boo xam ne am na qualité bii nii ci choix mooy représentation géographique bi sociologique bi waaye surtout les minorités les différent corps socio professionnel maanaam aspect yëpp lu ñu jël mais dafa am beneen aspect bu ci am solo mooy responsable locaux yi ñoom lañu wax ne yéen yéen a gën a xam li xew seen gox yéen ay ñëw jëluñu fi ay nit parachuté leen parce que dañuy voté ci dëkk sàngam waaye comme ni ngeen ko xamee mooy dina doon assemblée bi nga xam ne xëy na moyen d'âge bi mosu fi am ndaw yi dinañ ci teew bu baax a baax a baax a baax donte mixé nañ ko ay ay mag yu am valeur kon askan wi am nañu possibilité am président bi gën premier ministre bi fi mas gën ak assemblée nationale bi fi mas gën te ku xool mbir mi ni mu demee nga xam ne jamono ji li ñuy waxtaanee mooy ndax cent quarante cent cinquante wala cent soixante la mbir mi ni mu demee nga xam ne jamono ji li ñuy waxtaanee mooy ndax cent quarante cent cinquante wala cent soixante la ñuy am waaye majorité moom alhamdulilah bu élection di am rek te bi yoon dina am ndax ka daan toxal élection yi moom tal na leneen li naan gumba tal na leneen lu dul débiteen ba tax na ñi fi nekkoon doon tamante dëmm doon tëjante doon rayante doon exilante ak ñi nga xam ne dañ doon xaar deuxième tour ndax bugguñu ànd ak système bi ñëpp a walbatiku ànd mais jamais le jeu en tout cas euh, politique n'a été aussi claire et tranché désormais ñaari camp rek moo am gis nga élection yi mënoon nañoo def rek tànn ñaari bulletin Pastef ak la ca des opposition maanaam parce que ñoom ñëpp dajaloon na ñoom mënoon ñoo def benn liste mu jeex parce que ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi caxat caxatee alalu askan wi yamuñu ci di dóor askan wi di tëj yamuñu ci di exiler askan wi yamuñu ci installé benn terreur boo xamante ne nii kuy génn sa kër sax yaa ngi xalaat ndax di nga waat xam nga dañ naan sénégalais dafa gaaw a fàtte mais li fi xew yépp je pense que bu presse bi jékki woon sax def euh, rétrospection rek wala rétrospective dinañu xam ni Sénégal bi ñu doon dund y a de cela mois huit mois jëm kaw ak Sénégal bi yàlla ak yàlla la le président. Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa ñëw indi lu yees peq loo xam ne ñëpp nangu nañ ne loolu lañ nekk di doxal mi jub jubal jubanti réew mi nag fekk nañ ko ci anam yoo xam ne jub bi moom du problème ndax yàlla def na ñi ñu teg ci bopp réew mi ak ñi ñu tànn ñu jub lañ jubal bi tamit amul problème fa ñu dajee coono gu métti mooy jubbanti bi ci fànn yëpp nag ndax xam ngeen ne lii chef de gouvernement bi wax ak ñi mu àndal ci affaire u endettement bi ak yu ni mel li mu ci waxul moo ëpp foofu te ministère des finance ak yeneen ministres yi dinañu génn càmbar ko pàcc par pàcc bu ñu lancé référentiel bi ba pare les ministres ku ci nekk dinga génn wax ci sa secteur pàcc par pàcc pour ngeen comprendre niveau bi bi ñu toll actuellement ci réew mi boo balaa maa dee nag ñu ne waruñu koo wax parce que dañuy tiital ñeneen ñi mais ay kàcc ak i fen ngeen baal ma ci kàddu gi moo ñu dugal ci guute mooy yàgg nañ leen wax ni da ngeen di maquiller chiffres yi wax leen nit ñi dëkk ñu bañ te ñun bañ ko doon wax doon joxe ay chiffres te chiffres yi ñu mës a joxe kenn mësu kaa dindi waxuma laa nag léegi nag ñu sommes les détenteurs de ces chiffres la kon ngeen war a xam ne lépp lu luñ ci génne lu leer naññ la képp kuñ ci woo tamit pour nga leeral xamal ne dossier bañ lay tegal moom xawma lan waaye doo ko teggi parce que nag Pastef loolu la mës a wone avant muy yegsi ci pouvoir rawatina nag tey jii mu yegsi ci pouvoir moo tax ngeen gis opposition bi di tëb di daal di yuuxu ak haine bi mooy d'abord ñi nga xam ne ñoo yoroon caxat caxatee alal bi waaye mooy ba pare. seen yéene yëpp moo nekkoon faagaagal président Ousmane Sonko waxuma la ba du nekk candidat waaye xëy na ba du amati njariñ ci àdduna waaye tamit am lenn ci opposition bi loo xamante ne nii ñoo ñoo yamoon donte ñu ngi woon ci opposition bi parce que ñoom seen yéene moo nekkoon rek président Ousmane Sonko bu mu bokk ci lenn ndax am na si ñoom sax ñu ko seeti di commencé wax pour mu jàppale leen ci ay ci ci ay jamono. en boobu nag transmettre nañ ko ba ci yenn ci ñoo xamante ne ni tey xëy na. dañ naan ay journaliste lañ mais jàppatuma ne ay journaliste lañ te leer na comme dem nañ ba leen di <laughs> investir ci ay liste xanaa léegi nag dootu leen leen défendre ci ay délit d'opinion yu ni mel dangeen leen war a seppi ba mu set parce que dañuy yàq seen der loolu mooy dëgg duma ñëw ci di euh, ay wax ci wàllum bulletin yi parce que ñoom alalu askan wi ak coonoy askan wi au contraire buñ sañoon mbir yi day gën a tat ba Sénégal nekk dans le chaos total bu ko defee yi ne voilà échoué na ñoom conception boobu la ñu am ci politique te fépp foo xam ne jaar nañ fa muy ministère muy direction def nañ fa loo xam ne balaa nga koy réparer dama leen di jox benn benn misaal Dakar dem dikk xam ñaata employé lañ fa def deux mille huit cent quatorze CDI déglu leen baax li may wax ak 327 prestataires boo ko boolee mii 3122 te moo ne bi ñu bëggee yóbbu bis yi ci tabaski dañoo obligé jëli ay militaires ndax chauffeurs yu doyul est-ce que yéen a ngi dégg li may wax waa personnel boobu ñan la te ñëpp ay CDI lañ am nag toog ndax directeur bu ñëw yóbbu frigo indi ay nitam directeur bu ñëw yóbbu finalement congélo yi fees chambre froide yi fees lépp fees masse salariale 1,2 milliard par mois waaw ngeen yaakaar ne ngeen te xam ngeen ne est-ce que xam ngeen ne suñu employés yooyu moom la ñuy comp di jox saa su nekk fay déficitu exploitation bi de dix 18 milliards parce que service public la mbokk yi Dakar Dem Dikk ci situation boobu noonu lañ ko fekk dette bi mu am ci ay affaires fiscales yooyu rek. pour te dire ko dafa bokk ci daanaka ñu daawul fay fisc quatre-vingt-quinze milliards chiffres yi may wax yëpp yu ñu consigné la teg may invité presse bi ak journaliste ak sénégalais yi lii mooy débat bi nañu wax li nga xam ne moo yàqu ci réew mi te ñu wax ñun fan la ñuy jëlee alal di ñu koy defaree ñu nekk ci waxtaan yooyu moo gën diversion yi ñeen ñi nga xam ne ay jouekatu série lañu kon jël nañ ci nag ay mesures yu bëri nekk di wàññi waaye ñëpp xam nañ ne doyu nga dem fu mel ni AIBD AIBD xam ngeen euh, lan mooy budget 22 milliards waaye lan mooy recette am 7 milliards donc 15 milliards yi fu mu koy jëlee maanaam day jëndee juróom di jaayee ñett pour ngeen comprendre état moo koy compléteel 15 milliards ñun bi ñu ñëwee ci lu gàtt. ciblé nañ ci ay contrat ba liggéey ko ba nekk di ko arrêté ci ay contrat yaa ma neex yoo xam ne amaluñu benn njariñ xam ngeen ñaata la ñu économiser réew mi ci ay AIBD képp laa wax 63 milliards 63 milliards c'est-à-dire man li may wax yépp ci sama ministère kese la yeneen ministres yi énergie miine autre suñu génnee bu ñu waxee ngeen ngeen taf seen gémmiñ c'est-à-dire fépp jaar dañ ko cannibaliser ñoo raw cannibaliser ñoo raw ay ay kaña ci tool kon lii mooy vrai débat bi ñoom lii la ñuy bañ ñu leeral ko parce que xam na ne bu ñu jëlee assemblée bi mais dañuy installer haute cour de la justice te xam naa ci liste bi sax am na ko ci gars yi ciblé na xanaa kii mooy jiite haute cour de la justice parce que am na fu mu jaaroon ak ñoom xool leen suñu liste yi bu baax a baax léegi haute cour de la justice parce que instant yi li tax ngay gis ñenn ñi di balballu di tëb di wax xam na ne mënaguñ leen a jàpp ndax seen mbubb bi ñu am te te Macky Sall laataa muy dem daa soppi CREI yi ba mënu leen topp en ce moment ci condition yi pour te dire que ñoom dañoo dañoo def seeni mbir ba pare xool naka lañu ñu koy maquiller encore une fois bërëc mais haute cour de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuyu benn par benn kenn du rëcc ca kaw ba ca suuf parce que li ñu def nii alalu askan woowu ñoom li ñu jël bu ñu ko delloosee ñu régler problème yëpp. ndax malgré situation catastrophique bi ñu fi fekk ñu ngi continuer di tenir